Salut les amis de Sport TV et de Baba Show. Merci encore Gaël de la confiance en nous voler. Merci Louis des likes, merci Louis des abonnés, merci également Gaël de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois. Des partages et des informations. Inbox Sénégalais, fait folle Montenegro, 14 régions du Sénégal. Roufrouha di Gorgora di ñu leen di ñu également ci lal hôpital yi ci février, yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak ñu nekk ci yi aussi erreur judiciaire ak yi ñeneen ñi deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xal leen daajane fi daw si gars yi te ñu en avançant ensemble dans la

mais également gars yi wax ci nga d'abord anniversaire bu Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye bi nga xam ne gars yi tey day anniversaire am hein, star boy comme on l'appelle hein, donc le joueur de Metz euh, Marseille plutôt nga xam ne jamono ji qui euh, d'entraîneur euh, Jean-Louis Cassé daf ko On waat bu baax baax Iliman Ndiaye qui est sur une bonne très bonne dynamique jëm également ci la Roja espagnole l'Espagne bi moo nar a nekk seen ci ay mayo ñu wara sol ci Euro 2024 bi kii dak di fa donc Footy Headlines mako ko di fësal ñu wan le ko donc bi moo nar a Mayo, bu Espagne la Roja bu ñom Gavi et tout Malheureusement, Gavi est incertain pour jouer cette euh, Coupe d'Europe. Ligue 1, mcdonald donc logo bi la euh, donc qui saison de ñëw ndax McDonald's daal et gën jamono pour euh, donc jënd li nga donc droit yi ak partenariat bu wees bi nga xam ne mooy Ligue 1 ñoo amal jamono ji pendant ce temps Luis Suarez moom nag rendre hommage qui dit Messi à Neymar et à ko def nee na année bi may Pichichi meilleur buteur Espagne maak Cristiano Ronaldo Messi ak qui di Neymar nee na penalty yeeg lépp dañ ma ko jox même Disney yéen a ngi fàttali pour ñeen ñi penalty boobu Messi waroon dóor passe que Suarez boobu dafa bëggoon rek mu jël meilleur euh, buteur ki nga également nag mooy donc actuellement Erling Bro Haaland ak Mbappé euh, ñu ngi donc à la course pour gars yi euh, ñëw égaler record bu Cristiano Ronaldo ku nekk gis nga ñaata match yi man moo la ah, donc actuellement pour mën a egg ci nombre de nombre de buts hein, pour égaler Cristiano Ronaldo ba 94 buts moko d'Ali euh, daal qui dese kii di Luis Enrique nee actuellement dal John Lydie Donnarumma de len di jox beaucoup de confiance parce que Donnarumma actuellement gars yi bu ñu performance bi mujj c'est l'un des meilleurs gardiens actuellement au niveau de la Ligue des Champions mais même en Europe pendant ce également Luis Enrique wax na ci qui dit euh, Mbappé nee na ñep xam ngeen né donc aujourd'hui xam ngeen la moy sama gis-gis dëggantaan ci Kylian Mbappé mais nag ëllëgëm euh, dafa mel ne du du côté du Paris Saint-Germain donc faut ñu commencer di tambali di waajal di préparer également le ak kan mo ko remplacer pendant ce temps nag Lozano moom waxna na lu tax mu daal euh, donc euh, carton rouge ki nga xam mooy Jude Bellingham moo ne Bellingham ni mu waxee dafa nekkoon cadre agressif motam tax mu daal ko jox carton rouge di nak di ligue des arbitres ñom dal daal nañ di japp li nga xam moy mooy donc dan biñu dan daan euh, kii di Bellingham mooy ñaari match Aliou ici sénégal gars yi nag ah, donc dafay amal li nga xam ne nag mooy donc ñaari jogante xarito fii le 18 mars inshallah allah rabi donc gis ngeen ko mom nak genn na liste bu joueur yi mën a préconvoqué ah. donc fanweer ak ben 31 joueur le préconvoqué joueur yi jot nañ seen convocation depuis le 5 mars bi ñu daal di génn nekk loo xam ne ne gars yi day tax Aliou Cissé ñëw d' abord liñ pàcc yi ñu fay war a wax bëri na mais jàppale ne déjà hein, donc euh, joueurs yi donc 31 la ci préconvoqué euh, nent la ci woo après dina ko fësal Aliou mi doon laqatu boobu léegi nag dina génn jàkkaarloo taskatu xibaar yi bu génn jàkkaarloo taskatu xibaar lan lay wax lan la dul wax mais jàppale ne daal moo ngoog foofu daal lu tool fi mu ne nii des na gars yi Aliou Cissé neen day organiser entre guillemets benn nëpp ndëpp lay organiser national li jëm ci ndëpp mi nag détails yi la ko waral ak tout mais aussi également euh, xam ne mooy taxawaay bi nga xam ne jamono ji moom la ko am mi ngi ci Baba Show dem leen seetaan ko léegi-léegi bu bi jeexee mën nga ko fa fekk jox leen détails yi nga xam ne mooy jëm ci Aliou Cissé a mag mu ngi fa lan moo ko sabab mais aussi nañ wax ci ki nga xam ne <laughs> daal seen mbir mooy loolu quoi donc gars wéy leen di like wéy leen di abonné di jégal ci mbir bi nekk ci yoon bi mais mënuñu leen faj ñàkk jox information yi su baaxee ci yéen su bon a suñu la